ci li nga xam ne cour bi moom ci bopp dafa tënku ci loolu maanaam ni ñu xaaree ci yeneen ñi nga xam ne askan bi da leen dénk seen i suñu am am noonu la xaaree tamit ci cour bi ci application bi ñuy wax cour des comptes moom i tamit mu taxaw ci kanamu askan bi wax li nga xam ne tamit loolu la jot a def ci at yi nga xam ne passé na loolu nag def nañ ko ay at ay ati at waaye li ñu li li tax année bii mu euh, ak bii mu am euh, cafka bu bees mooy que euh, fan yi yëpp dégg ngeen ci rajo yi ci télé yi ci journaux yi ñuy wax naan rapport bi am na am na retard maanaam am na tuuti tardé tardé loolu nag bu amee day baax ñu leeral li tax mu am li tax mu am njëkk aajowul ci ay programme wala ay pression wu politique wala ay pression wu publique dafa fekk rek ni ci li bi di liggéeyee dafa am ay sàcc yu mu tënk yoo xam ne su ko toppul tamit day wàcc day wàcc liggéey te loolu tamit gàllankoor na gaawaay ak liggéeyu liggéeyu Cour des comptes ci ci rapport public bi dolli ci tamit ni euh, rapport bi di ngeen koy gisee maanaam loo xam ne la dañ ko dañ ko yeesal def ko tënk ko ci ay ci ay téere te loolu tamit euh, yéexaayu impression bi euh, indi na yéexaay bu ni bu ni mel beneen aspect tamit bu ñu mën a wax mooy que ni boo leen jëlee ñetti rapport yëpp su ma naatoo René Pascal expliqué na ko sànq ci kanam gis ngeen ni cours bi topp na ay saytu ci lu ëpp ñaar fukki bërëbu liggéeykaay ci biir dëkk bi te loolu du lu du lu tuuti ko doon ci am réew mi dinañ am pourcentage bu mag ci budget wu ci budget wu état loolu tamit nattukaay la ci li nga xam ne na importance ci liggéey di cour bi di def ko a nattee tamit mooy li nga xam tamit nekk na ci biir rapport li nga suñu naatagoo yi nga xam ne moom la ñu bokkal Afrique néew na ci ñu koy def wala ñi nga xam ne bokk nañ ko ak ñoom liggéey bi ci biir Sénégal muy IGE muy OFNAC muy beneen beneen kuréel néew na ci suñu biir ñoo xam ne dinañ natt recommandation yi nga xam ne moom la ñuy jot a def pour nguur gi pour en tout cas yeesal yorinu yorinu ak xaalisu wala am amoo askan bi loolu nag tax na ba ñu gis ni cour bi def na maanaam euh, ñeenti ñetti euh, ñetti téeméer ak fanweer ak benn ci ay recommandation ci ñetti téeméer yooyu lu ci ëpp xaaj bi maanaam téeméer ñaar yu manqué yu manqué yu manqué fukk cours bi topp nañ ko ci ci loolu te ñi yoroon ñi nga xam ne ñooñu lañ adressé woon genre recommandation yooyu wéyal nañ li cours bi doon li cours bi doon doon wax loolu nag du chiffre bu du du lim tuuti du lim tuuti parce que war nañ ci dolli tamit li nga xam ne ñoom i tamit ñi ngi ci def ay jéego ci at ci at bii di ñëw te loolu mat na juróom-ñaar fukk juróom-ñaar fukk ak benn beneen aspect bi tamit mooy que ni ku saytu di nga gis dina cour bi am na am na yu mu gis yoo xam ne wan leen nañ ko léegi ci ci nataal yi li ci ëpp mooy seetlu nañ ni yenn yorin yi dafa dëppoowul ak li ak sart yi ak sart réew mi wala ay sart yi nga xam ne moo war a jiital li nga xam ne noonu la ñuy yoree Euh, mbir yi ci biir kër yooyu nga xam ne jot nañ faa jot nañ faa dem euh, li ci ëmb ëpp solo mooy gis nañ ni am ay defin yoo xam du yokk maanaam li ñuy wax performance parce que yorinu réew yamul rek ci yor ko tamit ci ni ko sàkk yi diggale waaye soxla nañ également que performance yi nga xam ne euh, li nga xam ne nañ faa war egg ñu mën fa ñu mën fa egg bu ñu nee tey euh, ñëpp war nañ jot ci ay euh, hôpital yoo xam ne soins de santé yi dina baax euh, que gestion hôpital yi mën leen permettre ñu egg ci ñu egg ci ñu egg ci loolu. loolu nag boo leen gisee mu jar ñu di ko ñu di ko ñu di ko rappeler c'est parce que constitution bi maanaam charte réew mi ak charte bi nga xam ne moo aménagé Cour des dafa def dafa teg ci ndoddam daf ko sas. mu mën a def ay recommandation yoo xam ne day mën a yokk day mën a yeesal yorinu yorinu yorinu réew mi ñetteeli pàcc bi nga xam ne donc war nañ ci war nañ ci waxaat mooy lan lañu ñu war a def kon pour que Cour des comptes retard yi yëpp bañ a am euh, contrôle également yi ñuy def saytu yi ñuy def gën a mucc ay loolu nag. ci fan yi passé ñun ñëpp ñu bokk ëtt bi te suñu njiit ñu taxaw dirigé woon ko bokk nañ tënk benn téere boo xam ne ñu ngi ko ab dug tuddee plan stratégique maanaam naka la ñuy gisee ak naka la war a yoree suñu ëttu attekaay bii ci ñeenti at yi di ñëw te ci loolu baax na ñuy rappeler ni baax na ñuy fàttali ni cour des ci loolu mu dugg en fait am na leneen loo xam ne jiitu na ko parce que balaa ngaa xam fa nga bëgg a dem di nga jéem a natt lan nga yor ci ay lan nga yor ci koom lan nga yor ci nit waaye tega waaye tamit lan moo la mën a euh, tere egg fa nga fa nga jëm te ci loolu gis nañ ni ci lu ëpp ci at yi passé dépasse lu ëpp fukki at ci ginnaaw euh, maanaam nit ñi nga xam ne ñoo consacré wu ci contrôle yi ñuy def dëgg-dëgg néewoon na te at yii di ñëw commencé nañ ko sax at mii passé euh, war nañu yokk donc euh, magistrat yi ak ñi nga xam ne ñu ngi dimbali magistrat yi ci ci seen i seen i liggéey waaye jàpp nañ tamit ni pàcc yi nga xam ne war nañ ci mën a dox ay jéego mooy maanaam yokk rapport yi ñuy def waaye tamit mu doon ay rapport yu yu gën a yu gën a mucc ay yoo xam ne du ñu sentir kese du yam kese ci def ay recommandation pour waa nguur gi waaye ñu doxal recommandation yooyu dina permettre que citoyens yi mën a gis seen bopp ci doxinu réew mi beneen yëf tamit mooy que ni te wax ngeen ko seen i naata ko laajte nañ ko yan tank lañ war a dox pour que rapport bi mën a mën a gën a ñu mën ko gën a mën a teel a lah. teel a lah présenté donc président mi toog waxtan leen ko faram fàccee na leen ko sànq luñ ci mën a jàpp que ni daal délai yi nga xam ne moom lañ koy defee des koo wàññi ci biir cour des cour des comptes déjà rapport yii di ñëw bu 2018 ak bu 2019 ah digg nañ leen koo jox wala digg nañ koo jox askan bi fii octobre incha allah bu deux mille bu deux mille vingt seetlu nañ tamit ni euh, rapport bi du rapport boo xam ne rek dañ koy def comme contrôle parce que rapport yi boo leen ko gisee ay rapport yu bari la yu ñu dajale ci biir et que fii ak ñaari at yi di ñëw cour bi dina dem sax ba rapport yooyu ñu koy mën di jot ci situ ci situ cour bi voilà lolou dal la amone luma ñu warono mëna japp ci ci wolof daanaka